Sénégal Macky Sall nee na pour mu bàyyi pour mu bañ a def troisième mandat dañ ko koy ñaan ci njëkk ak teraanga ñun dañ ko bëgg a xamal ni ñun tamit réseaux sociaux yi pour ñu bàyyi ko daf ñu koy ñaan waaye nag ci njëkk ak teraanga aussi <laughs> parce que ku bloqué Facebook WhatsApp ak TikTok ak leneen lu mu munti doon. ñu laal VPN dëkk Chine wala États-Unis de manière virtuelle continuer TikTok wala WhatsApp wala Facebook loolu na leer si boppam de manière plus sérieuse bu ñu wax Macky Sall tu as la carte de la paix du Sénégal entre ta main joue la s'il parce que mooy dëgg bu bu gars yi ni kii diw diw diw takkal jéema non bu ñu dugg si interprétation yooyu kenn moo yor responsabilité de la paix de tous les Sénégalais mooy Macky nañ ko ko wax mu règle problème parce que mun na ko régler il suffit d'une phrase je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle 2024 Sénégal ne selaw mel ni coow mos fa parce que lii moom mooy l'élément l'élément bi nga xamante ni moom mooy l'élément principal de li xew lii lépp coow li lu muy bëri bëri bëri bëri bëri du lenn du condamnation du dara lu dul troisième candidature du président de la république actuellement kese moo mun a régler problème bu bépp Sénégalais jamono bi loolu rek lañ bëgg ni Macky Sall waaw comme que moom jox nañ ko pendant pendant presque dix ans mu toog fi munul dara munul def dara lu nit ñi xam voilà fu mu ne na fi jóge keneen ñëw essayé c'est tout lii dong mooy problème yi Sénégalais am ba pare bañ ko leen noot nag parce que ñun mënuñu laa jox pouvoir ba pare yow nga bëgg a taxaw fële ni way pouvoir bi jox ngeen ma ko léegi lu ma neex laa ci def non dañ la koy jox ñun ñoo la employé di la fay pour ngay liggéey mosuñu gis patron boo xamante ne day taxaw di fay employé am ba pare employé bi di décider loolu mënul ne <laughs> moo tax président de la république bu ñu la bàyyeeg affaire yi jox la sa indépendance ni la gérer boîte bi bu boîte bi commencé di wàcc di këpp dañ lay woo la eh boîte baa ngay këpp suñu alal lañ ci investir ay ca kaay ñu toog waxtaanee mbir mi te buñ xamee ne arrangé wu na dañ lay dàq daal di employé keneen loolu moo ñu dal yow jamono jii ci licenciement lañ toll ak yow jóge fi ñu jël keneen si te plaît